Mik TV ak émission Ëttu Tooxiduuna di émission bo xam du xaste du uñu sudura du wérante mais day laayante biir ngir képp koo xam ne dafa safo lool bi la émission abonné bi ngeen abonné chaîne bi dana baax ci yéen baax ci ñun waaye tamit dana am njëriñ lool ci yéen jërë ngeen jëf. di amaat kontaan teg bëgg loolu jàkkaarloo ak yéen seen seen bi nga xam ne ni moom mooy Mik TV waaye tamit seen émission bi nga xam ne ni moom mooy ëttu doxiduna di leen xamal ne rek mën ngeen a dem ci chaîne bi nga xam ni moom mooy MIG TV ngeen abonné ci euh, chaîne bi tey itam di partage li nga xam ni moom mooy euh, vidéo yi tey itam di euh, di ko like aussi tamit waaye tamit duñ ca yem yi nga xam ne moom mooy nekk tout le temps ci bande d'écran yi moom mooy suñu numéro saa boole ci wootee rek di ngeen ñu mën a jot bu baax a baax waaye tamit balaa boobu ñu nuyu baax wala moodu moodu boo xamee ni mën nga ca Italie ndax cas bi daanaka mu nga amee ca boog réew ca italie li nga xam ne nag moom moo dal immigré bi nga xam ne moom moo nekk ca italie ginnaaw ba nga xamee ni suñu borom dogal na ca moom mu jóge fii dem bitim réew ngir amal fi li nga xam ni moom mooy liggéey ak itam daan li nga xam ni moom mooy dooleem ma yàgg wax ni doomu aadama ci boppam bu amee ay at yoo xam dox na ci atam du mat fukki at ak juróom-ñett mbaa itam la ca toftal loole war naa tax mu yëg na ni amatul wuy jur bu góor mbaa itam wuy jur bu jigéen mbaa itam mbokk wala kenn lu dul ne moom ci boppam moom moo mën a jël li nga xam ne moom mooy propre responsabilité am loolu nag bu ñu ko waxee dafa laaj xeetu dégg bu am solo ndax jamono moo toll ak itam jamono moom sa mel sax ni doomu aadama dafa war a teel assumer ay responsabilité mu mel ni tamit ay immigré yu bari daan ko ñemewuñu jël seeni responsabilité wala yi tamit ñoom dafa mel ni buñ tukkee seen am xel dafay dal tàggale ko ak tamit seeni jëmm lu tax ma wax loolu mooy dafa am ay cas yoo xam ni dafa éphémère éphémère moo di ni cas yi dafa woyof lool ci diggin ci xel ndax lu tax ma wax ko moom mooy yow may seetaan déglul bi la kaa ba cas ba jeex takk ci ngay doo xam ne nekk doomu aadama am na ñoo xam te ñoom danoo naayif bu baax a baax lan moo xew ci la ñuy jëlee ba nettali wax ni ginnaaw ba nga xamee ne am na ay doom baay am ay mbokk waaye tam mooy juróom bu góor di dund nekk fii ci réew mi bàyyi ko fi mu dem bitim réew moom waxambaane boobee ba àggee foofu nee na ci boppam mu liggéey bóor góorgóorloo def lépp luy jom ba yàlla dënk ko ay xéewal yu bare bare mu a xaaral ma woo sama way jur bu góor jox ko ci ak moom ngir nu woon maa taxaw ci xeetum kër gu may wax fii ci bi réew yéen yi man ma yàgg wax sama émission ne dafa am ñett yoo xam ne doomu aadama dugg yóbbante mukk nit ci kaw suuf loolu yàgg naa ko wax samay émission dem leen si MIG TV ngeen abonné ci chaîne bi dugg ci biir chaîne bi xool vidéo yi ma def yépp benn par benn ngeen di ko seetaan lépp lu ma ci wax den ko fekk foofu ci biir ma wax ne immigré boo mën a nekk ci àdduna bi na nga fexe ba bis boo bëggee kër Sénégal na nga ñëw ci réew nii taxaw yak sama sama ngeen fondement seen bâtiment nga tey sa kër keur dal yobu bitim rew lolou waxna ko fii fi ne kep ko xam dañu la wo ngay immigré nek bitim rew nga yek ni sa way jur bu goor mbaa bu jigen dafa faatu na nga def sa kent lay katam ba nga fekke robba ba mbayam sax nga fekke dëj ba waye tamit wax ni ni mbolem immigré bu ne bitim rew bu mën ta ñak ba ta ñak bis boo demee sa bopp yow bay jël ab jigéen ci bile réew bëgg a sëy ak moom sa kem lay kattan na ko def ba ñu bisi fekkee bisu takka boobee ñett yàgg naa wax ni immigré bu nekk war na ko fexee defal boppam moom waaye immigré bii di mu def mooy dafa nekk ci bitim réew jël alal la mu yóbbante baayam ne ko dama bëggoon tabax kër ci réew mi yëkkati toll fukki million ak juróom daal jox way juróom bi mu joxee way juróom nee na way juróom ba wax ko amul benn jafe-jafe danaa taxaw kër gi incha allah ba doo ci am dara loola xar way juróom bu góor googu deful loola ndax way juróom bu góor dafa nekkoon kër way juróom mu maanaam dafa nekkoon ci maami kër moodu moodu maanaam moom moodu moodu ba baayam fa mu dëkkoon mooy foofee maamu moodu moodu ba dëkkoon kon ba léegi moom baayam sax amul jom ba mun a génn kër baayam dafa tas kër baayam ba kër noonu bu mu ko amee moom nu mu ko meññee immigré bi liggéey ca bitim réew alal la mu baayam na ko tabaxal ba kër baayam jël alal joojee euh, dem naan ko fondement naa ko tabax naa ko def naa ci lu ne fekk loolu leen dara amu ci immigré ba moom wóolu gi wóolu baayam dafa am yoo xam ne tay ma net le lola mbay itam tey ma jangal lako ko yow mi may seetaan ma bay lola xel lu bari lo xamni dafa am lo xamni do mo adam du ko jëflante ak buy jurum tay tam du ko jëflante ak kenen moy ki way jur bu góor la waaye yow tamit way jur bu góor nga ndax na nga amé dom bo xasse amé dom rek nek nga way jur kon bu fekkee da am sa baay sa baay lay mës a nekk ila yawmi dinaa ba dan dara mënu koo dindi mais dafa am certaines des choses yi nga xam ne boo koy def da ngay teggi sa baay teg fële ginnaaw ba nga mesurer di ma dem jëm jël sa propre responsabilité defal loolee sa bopp waaye nee na dafa wóolu way juróom yëkkati alal ja jox way juróom way juróom ja jël alal ja yemu ca waaye daf ko ànd ak ay mbokkam moom immigré boobu daal di nësxal alalu doomam joojee parce que jàpp na ne dara du ko ca fekk loo def waaye yemu ca mu fen doom ja ko ni maa ngi lay tabaxal maa ngi lay defal li nga bëgg yépp immigré wax ni la ko baayam wax dara amu ci waaye bi ñibbisee ci dëkk bi la laaj baayam baayam ne ko kër gi jotoon naa ko tabax lay ay lay lay ba amatul lu mu wax nee na bu ma demee di ko kalaame samay mbokk dañ ma ne sa bàyyi la bàyyi ko moom waaye ma na ab wàll joo xam ne dama ko bokkonte woon ak say doom yi samay doom yi bàyyi wàll boobu jox la ca wàll woowa nga mën caa tabax nee na ma tamit daal daan rek sama wuy ci boobu les décision moo toppaat ci boobu les décision ni ñi ma jël alal yëkkatiwaat joxaat sama wayju way juróom ngalal ga daana ko loon ko waxoon dara mu ci ndekk bu way juróom la ci amoon jot na ko jaay bu yàgg loolu nag mu am ab jàngat boo xamee ni yow mi may seetaan ne kiy immigré nekk ci bitim réew mbaa sax nga ne ci riir mi nga nekk dafa am mbir yoo xam ni boo koy jëf sab xel war naa mett ci jamono moo di ne damay faral di wax lu bari samay waxtaan yow mi nekk bitim réew di xam mbaa na dafa liggéey daan sa doole toujours ma wax lu na mel moo di ne bokk yi nga xam ne moom ngeen am ci réew mi mbokk yu bari dañu jubali mbokk yu bari duñu waxkatu dëgg mbokk yu bari duñu ay mbokk yoo xamee ni ci am mbokkum koom-koom la ndax mbokk dafa bari ay façon am na ñoo xam ne boo ñàkkee ñu doon sa mbokk ñooñu ay mbokk la ñu waaye am na ñoo xam ne bu amee ñu nekk say mbokk waaye am na ñoo xam ni bu la di dalee ñu nekk say mbokk waaye am ñoo xam ni bu fekkee koom-koom dafa taxaw daraja taxaw ñu nangoo nekk say mbokk kon mbokki lii gimat naa seetaan ci yow mi nga xam ne dëgg-dëgg nag waxambaane nga ndax immigré yu bari tey booy ren bi mbaa itam ngay rey ka leen toroxal seeni mbokk bopp képp lay doon loolu nag mu nekk jàngat boo xam ni yow immigré bi war nga ci jële jàngat bu baax a baax moo tax ni kii kat ba mu nekk bitim réew di liggéey dafa yëkkati alalam wóolu baayam jox ko baayam baayam xoolal di di ñaaw ji mu ko def da ko fen ne ko daal maa ngi lay taxaw maa ngi lay dimbali maa ngi def sama képp laay kattan ba li nga xamee ne moom nga war a am ngor ko am fekk lu dara dara ci dëkk waaye itam yemu ca ndax bu fekkoon fa la yem rek ñu ne déedéet waaye bàyyam daf ko ànd ak ay mbokki boppam boole la nga xam ne moom la seen doom ja liggéey lépp ñu ne ko faraax xëddeen daal di toog di ko seetaan ci koo xam ni wóorute ak confiance ak deret ak mbay ak sagal wayjur moo tax mu jëf bobu la jëf kon loola amna jangat bu bari bo xamne yow mi immigré bi war nga koo jëlee ab jàngat waaye tamit du ma ca yam dafa am lu bari lu ma ca war a leeral mooy ku ne France Italie ba Espagne partout dans le monde de certaines sama émission sen bi di mit TV daanaka ñun moom mooy sunu télé mbooleem émission moo xam ne ëttu tooxi duna la moom nga bëgg seetaan intégral demal ci seen bi nga xam ne moom mooy MIG TV mooy MIK point net tv loolu moom mooy MIG am na vidéo yu bari yi def ci chaîne ba woon muy chaîne flash waaye chaîne boobu vidéo yi dafa yàgg am na nag ñu may woo di ma wax ne ma ne vidéo yi laa tàmbat gis man leen dem leen ci MIG yi mooy logo bi ma leen tegal nii gis ngeen ko mooy abonné bu bii ku fa dem da fa fekk sama vidéo yu bari bu nekk ak njariñ bi mu làmbool bu nekk ak xam-xam ba ma cay wax bu nekk ak gindeeku ma cay wax waaye tamit ci cas yi nga xamee ni immigré yeeg ñu ne ci réew mi moom la ñuy dund loolu lañ ci jublu nekk mooy doomu aadama bu nekk dafa war a teel a assumer ay responsabilités jël ko xam ni moom rek moo mën a defal boppam li nga xamee ni loolu la bëgg rek ci boppam waaye nekk bitim réew nga xam ne léegi monde bi dafa soppeeku man dama yaakaar ne est-ce ñu ne Europe bàyyi nañu xel ni monde bi léegi dafa soppeeku bu njëkkoon Europe dafa nekkoon benn kiraay bu léegi Europe nekkatul kiraay bu fort léegi monde bi changé na tubaab yi sax ñu ngi jóge seen dëkk ci Europe ya di ñëw Afrique ak a delluwaat mais adduna bu fekkee da ko jël bëgg koo diisal jàpp ne Europe rekk moom mooy dëkk mais yow kañ ngay am ba sa bopp ñaata immigré ñoo ne immigration di fa def pendant cinquante ans fi ay kër bàyyi fi ay jeeg bàyyi fi njaboot bàyyi fi oto gaare waaye yow kañ koy dawal bu fekkee yow da nga ne bitim réew loolu liggéey investi ko ci réew mi te doo mës a ñëw mais yow li ngay liggéey lan la lay jariñ waaw mais ngay liggéeyal sax yow dañuy bàyyi seen yitte yooyu ñoom ngir nekk ci seeni bopp ngir dund seen adduna yàgg naa wax ne ni doomu aadama mënta suural moroomu doomu aadamam jigéen yi ngeen fi bàyyi mbaa ñi ngeen fi bàyyi boo leen doon jox sëg yu tonu ceeb taxul ñu suur ndax doomu aadama sax bu xëyee ne day na ma lekk kër yi ngeen fi tabax pour lan la kon faw ngeen jël loolee di baata Europe wàññi ko si seen bopp xam ne doomu aadama ci boppam fu mu ne rek yàlla mun na faa tabbi ko wërsëgam mais ci immigré yu bari yoo xamee ne daanaka sa nekk immigration sax da ngay doo xam sax lan lay nuru kon am na yoo xam ne nit yow yaa koy defal sa bopp yow yaay taxaw sa bopp teel a jël say responsabilité teel la not sa bopp ci yàgg naa ko wax ci anam su mën may natu mbaa anam suñ law ba matu nga moytandiku sa bakkan ak li nga xam ne léegi Europe c'est des fiction léegi Europe nekkatul fiction fi ma toog nii maa ngi jëm Europe maa ngi xam li xew Europe yow mi ne Europe yaa ngi xam li xew fii ki am fii 500000 mu ngi dagg biyam dem bitim réew liggéey fii mbiram te ñëwaat ci réew mi professeur yaa ngi fii Sénégal di jàngalee France ak Allemagne te ñu bi seen biir dëkk kon am na yoo xam ne il faut que immigré bi ci boppam mu yëg ne le monde est des sans am na yoo xam ne jaratul yónnee jaratul yóbbante jaratul waxal diw daggal si bii nga ñëw ci réew mi defal sa àdduna sa bopp loolu bokk na ci li ci am solo li ma ko waxee léegi rek ni dem leen gaaw abonné ci chaîne bi nga xam ne moom mooy Mbi TV daal di partagé aussi li nga xam ne moom mooy vidéo yi mais aussi tamit ci yem dem leen ngeen di ko like di ko commentaire képp koo xam ne am nga ci loo xam ne waroon koo tas waxtaane ko yaatal ko mën nga nu contacter su numéro bi nga xam ne moo moo nekk noonu ci bande écran bi suñu eh, numéro whatsapp yi su ko defee tamit nga mën a jokkoo ak ñun ah, bu baax a baax kon maa ngi sant di gërëm mboolem koo xam ne dafa ne ca bitim réew tey tamit safoo li nga xam ne moom mooy émission bi ñu bëgg na dem tamit ne daanaka lekkatunu naanatunu ndax émission la ñuy jël def ko seen oto ñii di ko télécharger ñii di ko def lu nekk ngir bëgg am suñu vidéo loolu tamit ñu ngi leen sant bu baax di leen ci gërëm bu wér a wér jërë ngeen jëf baax baax. MIG TV ak émission ëttu Tooxidoona di émission bo xam ni du xaste du uñu sudura du wérante mais day laayante biir ngir képp ko xamné dafa safo lool bi la émission abonné bi ngeen abonné chaîne bi dana baax ci yeen baax ci ñun waye tamit dana am dañ lool ci yeen jërë jëf